yow dàq ma woon kéro sama biir dëgg fii xam naa nag sa toroxal nga bëgg a déggaat xere waaw waaw man maa fi ñëwaat yow ya rama lan mooy sa problème nee ma léegi lii mooy sa problème rama yow il paraît que dégg naa nga dem kër monsieur Ndiaye yóbbul jabaram bi video yi. Hmm? waaw. <laughs> yaa ko def. maa def loolu. gis nga dama li nga def nii ne pense pas ne lu baax la boo yaakaaree ne lu baax la yaa ngi nax sa bopp. koo ndax man vidéo yi maa ko gis sama Ablaye Ndiaye <laughs> xale bi ñëw na ba fii. won ma vidéo yi. Ah, ok vidéo man gis naa ko. vidéo bi kay man dama ci jàkk sama bët. ah war nga koo gis di ndax. Boubacar yor na ko. waaw ah, moomu ko wan ci moom laa ko gisee. ci moom da ko gisee te xam naa ni moos Moussa Ndiaye duma ko jaawale. jàkk nag moom dafa leer naññ. Ablaye la de. ah gis ci vidéo yi may. nay na waa de lii de la wax. jamono ji daal jigéen juy sëy ba yeboo mu muñ rek sa jëkkër daa bu la fi bàyyi di jéem a dugg ci leneen xale yi la koy filmeel ndànk sànni la ko dangay xëy taal sa connexion rek gis sa jëkkër maa la wax lii man ki ma nekk sa wóolu ma ko soo demee vidéo daa ñëwagul rek waaye dina. man mi faraluma leen <laughs> ndax ñoom li leen war ñun daf ñoo wàcc. fooy dem en tant que jigéen. lay moom ma da ngay toog sa kër géré dañooy dem ñooy ñëw lu xew ñooy indi. góor ñi jaaxal góor ñoo xam ne mel na ay fas yu rëcc. ci ñi ma ko war a wax ah,